waaw mbokk internet ci bakkan Kane TV maa ngi toog ak Pape Sarr maa ngi yow neexul woon garaanga non non si <laughs> mu demee noonu. yow sama garaanga bilaay yow garaanga quoi waaw waaw garaanga quoi. mais naa la mon frère. maa ngi lay fay bu baax Iba Kane di la nuyu bu baax yaa ngi waajal lu lu jër. waaw maa ngi waajal lu tàng. dafa yàlla dafa def nag dama ñëw. Mhm. nekkoon ak rent DKR. waaw waaw ma déggoon ci lu bari mhm. rent DKR. waaw. mun naa ne ne Pape Sarr njiit bi la parce que soo ne Pape njiit bi la rek. Mhm. frère Jimbo la. Mhm. frère la. yàlla def na avance dafa am kenn ku may waxal. Mhm. avance su rente waaw amul benn promoteur boo xam ménagère boo xam ne mos naa teg ak yow loxo. man maa doon dox combat yi. mu taxaw Jimbo ñëw fay ménagère bi. te mbër yooyu ñu tëgg amul kenn ku si desel dara benn. dëgg la si ñii di wax. ñaareel bi damaa ñëw euh, Iba. Don taxawal ay combat fekk yenn combat yu magi taxaw. Hmm. mais su combat yu magi yi taxawul woon man bokku na ci ñukoy teug ta paré pare naa ko. dëgg la du deug limay wax ni tay amna ben sa mbokk journaliste ñaar. muy euh, Fadel. waaw Fadel mel Fadel ak euh, ki ki muy andal, medun, journaliste medun medun waaw amna luñu leen won. Mm-hmm. li leen won tag na Sa Thiès. waaw lim won teug na Eumeu sen mm-hmm. teug nañ ci seen bët. Mm-hmm. du deug kon lu ci dess mo ñu ñew jappalé ma ñu bayyi wax ji mhm. légui nak dafa am ay polémique ci samay mbeur yu ma ay xalé yu ndaw lañu Iba Kane gis ku ko fi def hmm. man ma fay mbeur 100000 may ko bologu ticket bu 200000 cent mille commencement làmb ren mhm. ba fu may grand combat képp ku dugg ci stade bi mhm. sooy duggaale di nga nga duggaale bologu ticket boo xam ne Pape may ko garanti mbër yi ngay kon ñooñu di dem di yak nañu bàyyi li ñuy def. Mhm. mbër yi ma tëgg boog bokk sama journée man. Mhm. ma signal leen jox leen sama avance. Mhm. te amul kenn ku ma si dogal njëkk. xam nga bii da ngay waxaale ak mbër deux cent mille jox ko vingt cinq mille man ku ma jubóol ci quatre mille jox naa la deux cent mille jox sa ménagère. amul benn ménagère buy taxaw fii gudduñ toll nii ne desal naa la dërëm. mais lu tax gars yi bëgg gor say tànk. munuñu ko parce que xam na ni man su ma xamee ne yaa nga dugg samay affaire bul sonal sa bopp. Hmm. fii doo fi am jàmm. parce que suma dugg seen taxawal combat. xanaa da ngay dem leen di déranger loolu moo leen metti damay déranger si naka si naka. xëy na dañoo foog ni <laughs> non dañoo foog ni. Hmm. mais nag damay gërëm bu baax suñu père père ba. mu ngi maa ngi gis muy jàppale xale parcelles yi. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ba pare di ñaanal papa Sow moom it ak suma frère jamaïcain. Mhm. nañu bàyyi li ñuy def dafa am benn waay boo xam ne dama ko tëgg ku ñuy wax Ramdan Signor. benn booy. Mhm. Ramdan Signor boobu maa ko indi ci làmb. Mhm. sur rent DKR. léegi dañuy jubal ci benn grand frère am boo xamante ne. naan Pape Sarr amul date léegi Ramdan Signor laay wax. même bu ma jëlee fii date. date bi sori. man libéré naa ko. libéré naa Ramdan Signor mu bëree ba pare. doog ma bëreel mbër yi ma jox avance yëpp pour ma wane ni man yëg ak coono bi ma am ci mbër yu ndaw yi ba tey ci laay nekk dagg naa sama licence jox naa leen sama avance mhm. su ma daggee sama su ma su ma ñëwee ñu jox ma date mhm. mu leer ma date bi day dem six mois mhm. bépp mbër bu ma engagé lii man maa ko wax ñëpp di ma dégg bépp mbër boo xam ne yaa ngi sama avance boo gisee promoteur na la tëgg ba sama dat jege nga ñëw bëreel ma kañ sa yow kañ nga kañ lan lan ngay waajal gars yi ban combat c'est que problème mooy dama defar sama combat yëpp ci ñetti fan Mhm. spécial ñaari spécial yi parce que dama si bëgg décorer baabooy. baabooy le roi baabooy waaw dama ko si bëgg décorer. Uh-huh. dégg mooy sama invité d'honneur. waaw benn benn bi nag beneen drapeau bi nag drapo papis la. bu one x bet. one waaw maa ko fi uh-huh. indi de one x bet. yaa ko fi maa ko indi si stade bii. billaahi wallaahi. li loolu rëy na de. xibet laay indi fii ci stade bi millions millions garaaw loolu du ay million mais xibet moom. Ah. directeur bi moom di ngeen ko gis ci stade bi. bu soobee yàlla kooku ay contrat mais mais noonu bu ñu xamee foo jëm non non dama ne la man waaye man even kii kii Iba Kane man tàkkosaan yu garaaw yi am Pikine yëpp dama koo gañe ci digg géew continuel akan dama ànd ak Eumeu Sène Lac de Guiers waaw taabu ma awuma góom damaa ànd ak Eumeu Sène Modou Lo ci digg géew uh-huh. damaa ànd ak Eumeu Sène ak Gris Bordeaux uh-huh. damaa ànd ak Ama Baldé événement yu garaaw yëpp yu tëj estat uh-huh. dam cee nekk xoosuma xuriwuma dëgg la kon ñii li ñuy def nii nañu bul ñu sonnal seen bopp képp ku seetaan tàpp ci youtube bi dégg sama yaay li mu wax ci man si yeboo nga def ci man ndànk dama bëgg nag ñu jàppale ma ñaanal ma jéem maa bàyyi ñu jéem a fakkasal ba bokkuma ci association promoteur ànduma ak benn promoteur sama sama làmb. mooy yooyu ñuy jox journaliste pour ñu dugg nu mu tudd. accréditation. mbër journaliste du ko takk. fu journaliste jóge na ñëw dugg. doo def pay du ma def loolu léegi nag jaaykat bépp jaaykat boo xam ne yaa ngi ci stade bi. Uh-huh. barki Seydina Mohamed nga ñëw di ja daan sa doole doo dagg ticket. loolu may naa la ko. Uh-huh. may naa leen ko ma woon leen. Uh-huh. man damay jaamu yàlla damaa yàgg a. topp mais grand combat lay nekk ak ban date bu ma am baax na. instant nii grand combat damay xaar tey. Euh, nu mu tudd bir ñambe euh, ñew mu jox man dat bu ma am baxna na xëccoowu ma xëccoowu dimanche mhm. xëccowuma dara man dat pour ma leen di li ma leen di libéré rek ñooñu di wax ni yak dama leen di mhm. libéré mhm. xëccowuma nañu jël ba dat yépp jeex su dat yépp yëpp na te tëggaat dewen garaawul man garaawul ma loolu mais mais dañuy dugg ci actualité <laughs> lamb waaw mais fe da mm. nga sol ndox xana mo tax demo gambi la mo dewuma non non man dewuma parce que ah. gis nañu suma ñaari rak ñoo fa ñoo fa ak ama ëmm ak ama waaw léegi si fan dem ah man maa maay posé question fan nga dem dem man maa la posé les questions ama sama rakk ëmm seen sama rakk fan laa war a féetee fan laa a taxaw nit ñi nga lu baax sax wax looloo ma teree dem ak combat may taxawal fii mais mm-hmm. déggoo ma ni est-ce que mm-hmm. bii nii. Mm-hmm. combat bi bañu ma ci sax dem kaso. loolu moom réunion nañ ko pikin. waxtaan nañ ko ñun ñu pikin may tuñu sax nit nit. jóge ci àll ba romb ñoog te setu Modou Lo. déedéet ah Pape nag barke Seydina Mohamed non lii du sport de. lii nekkatul sport. waaw ah, yow tam sportif non nekkatul déglu nekkatul sport. yow yaa gën a seetaan cosaan bokk jëf. yàgg na régional ba ah. ñaata édition lañ ko fubal trois édition ah. munul egg te fa la Modou dëkk mm-hmm. Ama Baldé cosaan la dëkk ah. boobu Cité Police amagul dëgg la gis nga euh, match boobu mm-hmm. moo wuy si combat bi doo leen may ku sol tisatu Modou Lo mayatuñu nga ñuy romb ak tisatu Modou Lo biir Pikine maytuñu loolu wala toog ci ay grand place di sous-estimer suñu mbër bi loolu jeex na pour pour ñoom rek. Ah. ñu xam combat bi fu mu ñu toll. combat bi mooy gën a raw ba Boy Niang Balla Gaye barke Seydina ma te maa ngi koy wax xale bu commencé am juróomi at. Mm-hmm. ba am cinquante ans. Mm-hmm. fii bu midi na la fekk ci stade bi. kon xanaa gars yi di wax moo Ama daa blessé day dugal médical koo koo fekk ngeen koy wax lan ngeen koy def. non loolu garaaw loolu ñoom nañu wax lu leen neex. Ah. nañu wax lu leen neex. mais loolu ñu mën a wax si loolu. coono bari loolu non Ama Baldé dafa nekkul sax Sénégal. dégg nga. nekkul nekkul Sénégal. Ama Baldé bi mu jógee Kaam ba tey ñun mënuñu ko gis du dëgg Ama Baldé ñàkkul fayda ñàkk fayda yooyu Ama Baldé bu gaañoo day dem duggal dañuy xam ne kii nii ngorom la mais nañ ko ñaanal jàmm. Mhm. deuxièmement bi maa ngi wax ci buur géwél. Mhm. buur géwél. waaw dafa déconné. Mhm. dégg nga. su yow de wax dëgg yàlla kenn du la gëreese. dëgg la ñoom ñëpp daw nañu ci waa jàmbaar yi. dégg nga ñuy ñëw di leen di dëkk di di di ñëw di analyser di wax lu leen neex. Mhm. ah man de avertir naa la ko man suma nit nga. nan la Bour Gueweul Bour Gueweul nee na Ama Balde bii mu gis parewul pour daan Modou Lo. waaw Ama Balde bii ma gis parewul. Mhm. moom ak Fadam 2. Mhm. ñun ñun. vidéo yi ñi adduna bi yëpp ko seetaan mhm. yaa may dégg am na vidéo yoo xam ne ay maire yoo xam ne ñu ngi foofu ay saaga lañ ko saaga dañ koo dagg mhm. mais nag yooyu yëpp duñ ko man li ma lay avertir mooy mhm. di la ko ñaax comme suma frère nga sa tànk bu mu teg ko ñu ma nag muy yow muy fadam dam lay ñaanal pour sa jàmm lay utal sa tànk tegu ko ñu fàllaay loolu mais combat bi dafa. tànku euh, tànku buur géwél laa la wax. bu mu hmm. teg koñu fàllaay bu nekkee bëgg na jàmm. Hmm. teel naa ko wax pour ñëpp dégg képp kuy mbokkam. Hmm. man de wax dëgg yàlla du ma ko def dara. mais dama koy dama koy aar. tànkam daal bu mu teg koñu fàllaay. xanaa coupe du monde ngeen di bëre. non du coupe du monde lii combat bi. Ah. ñii xamuñu sax. billaahi wal kitaabi. de dégg ma wax baat ku ñaaw Modou Lo xam la la ñu sekk. mu ñëw fii ñu duma ko daan ko. mais 200 pour cent waaw mais bu baax a baax déjà yow boo egsee fii kay jeex na boo egsee ci Pape Sarr rek. waaw egg nga ci deux cent pour cent. <laughs> yaa ma may dégg sax ah. Pape bii di wax ci Ama wala Eumeu Sène wala Boy Niang amul kenn ku ma bokk sa staff. <laughs> tey laa leen wax ci affaire u staff Ama Balde écurie Falaye Balde dañu def assemblée général <laughs> ñu ne ku bëgg bokk ci pos bi da ngay joxe dix mille. ma joxe sama dix mille. joxel ndam si yàlla si Samba Sarr dix mille. joxel Bayla sama rakk dix mille. ñu ñëw ber ñu. ñun membre yi mané len soxlawuma ben poste parce que bëgguna suma su kër Eumeu Sène ah firi bu ma demee kër Boy Niang firi man bokkuma ci ben staff affaire staff bi ñuy wax Pape Sarr nañ mako téggil man man wala ba légui dara lo combat bi bañ am ak violence ci si biir digg ge man limay ragal moy ci digg geew bi ñu ni ñom ñaar si digg geew bi ah. man la wax ni ba li ma lay wax ni la wax ni mm-hmm. duggu si stade bi amna dé mm-hmm. mais pour lamb ji ñu bëré ko ci digg geew bi ah. su ma juumul gis nga gars yi nekk ci Modou di wax yëpp mhm. barke Seydina Mohamed Zourou làmb ji du ñu topp Modou Lo xanaa Serigne Ndiaye wala Papis ñooñu d'accord nañu mhm. mais waa jooju accusé Pokola pompe à gaz bi mhm. billaahi wallaahi watalaay man duma ma ko wax dara de mais na jàng athlète jàng daw parce que Pokola bii nga tiiñal nii yow ñu gis la ci vidéo yi nga yor sa pompe à gaz man du ma fajal sama bopp de Pokola bi nga tiiñal noonu tuumaal ko sie boo soo la yàlla indee fi stat ba yàlla tegal leen nga xool Pokola mu xool la sie boo nga jàng athlète si nga yow nga jàng daw de parce que xam naa booy bi de da koo tuumal ne dañ koo daje ci féeri ba pap Pokola man dewuma Gambie mais ah. vidéo yi ah. laa amee samay preuve mhm. dama xool vidéo yi ñu gis pompe à mhm. moom mu yor ko ci loxom moom waa jooju mhm. bii ne Pokola moo ko yore yaa ngi may def Pokola gis nañu ay vidéo yoo xam ne ay ndox ndoxu taw yooyu si féeri bi la doon sangoo di ko xëppoo xam nga yaa ngi may dégg sax ñu ma dégg ay yuuxu amaaye mais moom mii ne Pokola Pokola moo yoroon pompe à gaz bi billaahi wallaahi si yeboo mu ànd parcelle yëpp bis bu ko yàlla fekkee fii ci arène nationale bi mook Pokola bu ko yàlla fekkee fii mook Pokola billaahi wallaahi watalaay ñun xam nañ ni ñun ñep kasso lañ jëm parce que li dafa ñaaw soy wax ci doomu jaambur na nga wax lula la leer deug nga ay genné ay pompe à gaz ay genné arme la yor loxo yu wex tal ah xam la xam nga mhm. yor yor yor yor yor kiyom nga mhm. taxaw nan ay pompe ba papi yi sa ngi nii mu ngi koy tuñal ne ko non moo duloo neew setan leen vidéo yi mhm. amna na fu mu doon wax ba tuddu modlo papis mo koy dànkaaf won na ko day fen mhm. won na ne ko da ngay fen mhm. mais mais pa gis nga leen ñom ñaar gam nga modlo Lo ah. Ama ku gëna a actuellement ku gëna a Ama balde. mais gay yi nanguwuñu lol de non Ama Baldé man dina gis sama rek naan ay modlo di xol ay modlo duma ko sax setlu setlu woo ko sax barki sayyidina muhammad duma ko setlu fofu xama kan mo fay beure uh-huh. sama kan mo fay beure uh-huh. muy wa keur musa Dioum waa kër Moussa Dioum ñuy bëri dañuy xoolal dawal kabooy dawal kabooy génnee indo mais Moussa Dioum bii mhm. da su ma balaa may am lu may métti rek ñu ñëw fii di tuus tuusu Moussa jum boobu ci dundam la la la gënoon a jekk ci dundam ñun xam nañ nu mu demee de dëkkuñu foofu de waaye mhm. xam nañu coono yi fa Moussa Dioum jëlee mhm. bi bob xalé bobu di gañu su dëj bi bobu di daanu. Hmm. amna na fi tous tous am ñewuñu ci dëj ba. wa légui damay révéler sen secret dégg na yeen ngi waaj réunion bu doy war avant combat. inshallah inshallah ñu koy wax non dañ ci nandal moy, dañu dañu ñew pour grand place yépp mhm. grand place yi nek Pikine yépp yeen a ngi da ngeen di wër. yépp la ñuy wër tali bu mag tali iko Icotaf ak yooyu interdit nañ fi tisatu Modou modlo ak ay taxaw fi di wérante ay jotaay ay modlo Lo ñun Pikine lañ dëkk soo koy werante da ngay dem ba interdit nga wax ko fa loolu jeex na fii ci Pikine gudduñ toll nii. jërëjëf Pape billaahi combat bii. waaw ah. combat bi di nga xamante ne yaa ngi di ay dof lañu. Ah. dof du tëgg làmb génnee ay centaine de mille loo leen tëgg mun naa ko tëgg. dof laa. Ah. loo leen tëgg sa association boobu noonu ngeen ne làmb xaalis. barki Seydina Mohamed bu génnee ci contrat bi bu ñëwee ma fay ko bëreloo ko barki Seydina Mohamed Modou Lo billaahi wallaahi watallaahi bu génné ci gari contrat mi mhm. na ma ak suñu papa biram ñi ngi ma fay ko barké Seydina Mohamed bëreloo man papa Saram dof bi Lobat Fall surtout Lobat Fall la surtout Lobat Fall la dara jomm man dara jomm ma yaa Dakar deng 329 personnes la yobu makka mhm. bàyyi fi 700 carta gris grises fi surtout Lobat dégg nga kooku si ay tankam lay dox kon lool buma amul li mhm. ñu wax mako dara jomm rendez-vous le 5 novembre. maa ngi woo ñëpp fii baax na. <laughs> fii saf na de. sama gars maa ngoog.